asalaamaaleykum taalib bi noonu ma ko defoon ngir taxawaay bi góor ñi am ci soxna yi ak yërmaande jeeg cofeel gi ñu am ci ñoom soxna itam war a góorgóorlu bu baax bisimilah. soxna si ñëwal tey ji ma biral li daw sama xol kon déglu ma waay jox ma sama cër tey daw sama mer galabul mawar japale mawai gisna fi teul teewul mani leen man yai sama wai, ngir amerit, wanyil ay karit, tey sama wet def ma may sa lépp lu ma am ñëw naa la am lépp lu ma xam wax naa la ko waay léeg-léeg sax ma dem fi bare wiirom ngir wut lu ma am jàppale la waay gis góor gu woomal bum tax nga dëngal ay ngala sëyal seet ci doom yi waay loo am na nga jël loo ñàkk mu ñël bul ma ci la jël ñeewante ma waay fajar cuy ma juug liggéey na ba doog lépp ngir nga beeg jàppale ma waay fonkal dakando moyul andando, def ma do, ta def ma ya talal sa xol sahel, sa xel tey topp ndigal kon nga muccu way bo bege ma jooy tooñal sama yaay don sama bay nyiru suma ci boku imam sakul sen garam say kharit itam japele ni i waay lépp loo ma di cerbi delo mako bulma jawale man mal jale sin keur puldi ngay xale pul di fàtte waay booy sàkku lu kongam kowai juru fi ku gor góorgóorlul bu bax kon nga am ko way ni maa la ni mala lay ni mala yege. Diem nenyepuai Sayo mamere Doto gismare mare la fare Man yai sama wai ya fe sama khol dojuku sama khel kon masagal ma sagal ya ma wai ya sama khol dojuku sama khel kon dee ma jàppale ma waay Serigne Saliou Gueye Badar